بك وسريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفهم قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا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 képp koo xam ne dafay sàkku mbir moo xam ne dafa jafe na fexe ba def secret bi ni ñu koy waxee incha allahu rabbi suñ borom dina jàpp dal lool lool muy sàkku moo xam mu nekk visa moo xam mu nekk xeewal xaalis moo xam mu nekk liggéey lu mu ci mën di doon rek fexeel ba def secret bi insha allah boo ko defee suñ borom dina jàpp ndal loola bu baax a baax a baax a baax xanaa bala ñuy gën a ci secret bi rek dañuy defati am fàttali comme nañ ko daan defee di wax yow mi nga xam ne yaa ngi soog a ñëw te bàyyi xel suñu vidéo boo abonné gut ci seen bi nga abonné tey seen vidéo yi day partage mu gën a yaatu ndax vidéo yi ñuy dugal ci seen bi yëpp ay vidéo njëriñ kese la te njëriñ moom lu mu gën a yaatu rek ci la gën di la wax yow mi nga xam da nga bëgg a def lu listixaar dañuy def li listixaar à distance fo mëna nek ci aduna bi mo xam nga nek ci réew mi wala nga nek bitim réew te bëgg ku la defal li listixaar mën nga ñu contacter ci numéro bi muy 77 684 28 28 77 684 28 28 inshallah rabbi bo ñu contacté dess na la defal li listixaar bu leer nañ inshallah yow mi nga xamne da nga bëgg bokk ci groupe whatsapp bi batay man nga ñu contacter ci même numéro inshallah rabbi waaye nag groupe whatsapp bi amna ay conditions yu ñu ci bokk mo ñu contacter rek inshallah des na la wax conditions yu ñu ci bokk garab yi kattan yu am solo yi ni defar muy garab yi mos te ñu bare bare xam ko jamono ji ñi wax ak yeen disponible na lépp ku siy rek man nga ñu contacter kon mbokk yi ñu ñew ak yeen ci secret bi ne indil tay waaw li ngay gis muy warafaxnaahu makaanan aliyan warafaxnaahu makaanan aliyan comme ni nga ko gisee ñu ñu binde ko nii makaanan miim googu ñu yaatal ko bind ci mi bind ci biir matlu comme ni nga ko gisee nii da ngay wut kayit nga bind ci warafaxnaahu makaanan aliyan nga bind ko 33 fois fanweer ak ñett waye mimo makanan waxtu wo ci accès nga kay yaatal boko yaate la nga xamne moy sa yitte mom ngay duggal ci biir yitte ji bu nekké sidda def ko ci bu nekké visa def ko ci bu nekké liggé def ko ci yitte ji lu mu man di doon rek fexel ba duggal ko ci biir mim gogo mi mimuk makanan gi boko ci dugale ba pare nga bind ko 33 fois nak ko fatte boo noppee lii ngay def saafara boo ko defee saafara nga wut parfum bu neex yi ànd ak saafara moo xam misk saafraan wala maa u werd boo mu ci manti nga boole ko ak saafara si di ko sangoo boo noppee boo koy sangoo nag pendant onze jours waxtu wu ne da nga koy sangu boo sangoo pare na nga werdu lii war a fax na makaanan nga fexe ba werdu ko trois mille trois cent trente-trois 3333 nga fexe ba weddu ko ko allah rabbi loo sàkk lu mu di don, ak lu mu jafe-jafe bala on jours mat suñ borom dina la jox loola bo on jours yi matee na nga fexe ba jënd tàndarma nga wàññi ci 33 doomi tàndarma nga ko allah rabbi lépp loo ci ñaan suñ borom dina ko def kon xam naa secret bi binga bi nga xam ne moom la ne ñu loon tey te wax na bu abonné ko ci bi nga abonné ak partage vidéo yi mu gën a yaatu wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf bul fàttee abonné te nga bës kolos bi ngir vidéo yi ni dugal nga man ci jot